jàngoro bi ñoo wax coronavirus dafa reye te dafa wër àdduna réewi Gambia am nañ ñu ees ñoo xam ne jàngoro bi dal na leen bul raxas sa loxo ak ndox bu tilim na fexe ba booy raxas sa loxo mu nekk ndox boo xam ne mu ngee daw nga àndale ko saabu te it di jonj sa loxo lu toll ci ñaar fukki seconde na ngeen ay ndaje yu mel ni ngénte ak takk na ngeen moytu di lekkandoo ci benn bool nangeen góorlu ci soriwante aaral sa bopp te aar say njaboot ngir bañ jàngoro gi tasaaroo toog leen seeni kër yi 2012 Tiger Cement mu ñontogoleti pour allah cement to kuola Tiger Cement mu Gambian taleti andung abota cement bunda mento wele warata cement beti albeti nyimbanko kan anin Tiger Cement na supply yol kata banko karol bela ila fita hapo menna wonin da dimala kabirin ibe banko la député bungo lokan anin Gambia university do doku o membe je sainteng

turi Henry Kojo Harris um, suma papa mu ngi um, Kweku Kweku Harris Johannes Kweku Harris mulai chat, mulai la gaa daan ooyee um, Six Combo Street mooy fii Banjul Um, client yi fii basically moo nekk comme suñu néeg because um, ñoom ñoo consider as suñ suñ number one client suñu néeg aussi ak people around us raada price bi moom comme yëpp daf dem la nekk same i ñun ñu ngay jaay five dollars for suñ normal bread bi sweet bi three dalasis waaye tamit du dee nekkee comme price day nekkee comme quantity quality bi comme am si biir comme da ngaa gis stuff like that bread yi du am just plain bread like stuff so product bi day nekk comme the main thing so prices yi not naa nekk same product bi

Euh, suma papa moom moo si dugal moom moo ñu daan groupe moo ñu train moo ñu jàngal moo ñu woon yoon bi ne comme day saabi douce comme nii lañ ko dee defee waaw suma papa daal moo ñu si dugal parce moom tam si papaam la ko jàngee ku samp foofu yi dindee génn na léegi dat mot ñu dee dina si mburu bi dindee dindee ñëw ut si mburu bi so loolu dafa nekk comme big problème ni daan jaayee di nekk comme parce que duñ dee supply suñ supply tamit du nekk lu bari so jaay buñ dee jaay ni si duñ dee génn si léegi so dafa over affect suñ business agana um, nani ni 12 years because mo nekk xale ndaw development comme man gis na ne comme haris kuna war na waron na romba fi te waron na passé fi te um, waron na ibiye brand branches daal man de suma five next five years man suma amoon suma fuuti boppa ibi more branches employ more youths moo doon nekk comme man suma aim next five years there are different different types of bread where I come they deliver fresh, sweet, um they deliver kwasa, then they deliver snacks también. waaye comme mainly suñ moo nekk comme fresh bi ak sweet bi foofu leen dee gën a concentrate on parce que foofu la suñ customer bi dafa different na gars so mis man di ak fresh um, maa ngi tànk sama customers yi mainly ba pare di leen wax thank you pour loolu ñëw pour woon nit yi comme the great job you're doing. But come right now, nung si pandemic, COVID-19, um, coronavirus, comme maa ngi wax um, nit yi ñu stay safe, stay home. ba pare comme ñu raxas seen loxo yi frequently comme gis ngeen comme ni ñu ko dee defee um, stay home, stay safe.

du MC buat borom bu la jël si du magi jalan ndaw waru waaru Dugi duggi gambi waru kuli nafsin saa khatul Mautu mawti deebi tebu ñu feebru Jamu julli jaamu Dewe na boo deewee moo lay teeru fagaru leen balaa feju xodeeku leen pala lakk raxasu leen balaa takk Then jamu la wagu wëgg fu ñu di bëgg Pandemic is fucking real never take it as a deal tenang nag jàkkee la ñuy tëj naaj bi di tej mburum sarax ak de nañu

raxasu leen ma ne ma ne mag wala xale ma ne wax ko ku ne nañu lii de ngénte nañu lii de tardel nañu lii de sonal nañu lii de jaaxal nañu lii de ngénte nañu lii de tardel nañu lii de sonal nañu demal kuruna yeah Mike squad ñu ne na jéem a fàttali ñuy raxasu di bàyyi tere yi di meyante one meter corona lu am la is something real yeah stick with us salaamaaleykum salaamaaleykum ah jàngoro bi ñoo wax coronavirus dafa reye te dafa wër àdduna réewi Gambia am nañ ñu ees ñoo xam ne jàngoro bi dal na leen bul raxas sa loxo ak ndox bu tilim nanga fexe ba booy raxas sa loxo mu nekk ndox boo xam ne mu ngee daw nga àndale ko saabu te it di jonj sa loxo lu toll ci ñaar fukki seconde na ngeen ay ndaje yu mel ni ngénte ak takk nangeen ngeen moytu di lekkandoo ci benn bool na góor góorgóorlu ci soriwante aaral sa bopp te aar say njaboot ngir bañ jàngoro gi tasaaroo toog leen seeni kër hunger campaign has begun. Let's push to have a country. The Zero Hunger campaign has begun. Let's push to have a country free from food insecurities, malnutrition, poor social protection schemes, and low agricultural productivity. More than half of our homegrown food cannot feed the nation. And more than half of us do not even have a balanced diet daily malnutrition has affected many vulnerable groups, even in adults. Eating well is a sign of living well. Let's declare that no one should go hungry. Together, we can consume more of our local homegrown food poultry, animals, grains and green vegetable crops. Let's call for sustainable social protection rights and invest more in our agricultural sector so our food can be more available accessible and affordable. Collectively, we can move forward with zero hunger. Declare it today. waaw lii mandarga mi xàmme naa ko waaw dañ daan ñëw dëkk ba <laughs> ñoom foog naa am nañ rajo sax rajo rajo am nañ ko boo nekkee dëkk ba da ngay dégg euh, ñuy maye ay crédit <laughs> waaw waaw ñii ñoo baax ñoom de moom xam naa ne kenn du ñoom waay waaw waaye Banjul a ngoog waaye Banjul <laughs> ñoom fu nekk dañ koy déchaîné déchaîné ko yu rafet ak garab yu taaru yi waaw Banjul waay xoolal ma xoolal rek Banjul waay waaw waaw lii dafa ini ni aaj bala di way yaa yooyu masuma koo gis nag masuma koo teg bët ci xaalis rek laa koy gis mooy téeméer ba hehehe waay aaj waay xam naa ne jàmme moom sori na fi de waay yéen man lii moom ay toogeekaay la yéen lii du daanu ci kaw bopp nit ñi lii wóor naa waay waay waay Banjul waay xoolal ma xale yi rek waa na ngeen def Banjul ma ne ko fii moom xam naa du ma fi yàgg ndax dégg naa Banjul dafa sedd waaw ah, te bàcculoo moom bu seddee moom eh, neexut a eh, toppatoo xoolal ma xoolal ma néeg yoo taaru yi rek waaye Banjul njaay <laughs> ma ne xam naa ne fii de moom fii wóoru sax ma fi yàgg ndax fii bu ma fi yàggee moom eh, dëkk ba mën nañ ma jël si waaw Banjul waaye ak oto yoo rafet <laughs> Banjul Wah, waaye naka jekk waxoon nañ ma lii waay boo fa yeggee taax nga di sini sa kaw ah Kalau ma taax ci kaw nga ne gudd sa morom nga ne bii la ah xoolal ma suuf ni nga ko dëree ah coronavirus waay yéen Kisoli nit ki ba pare doo ko wax sax massa waaye tax fi dee amul lu wax salaamaaleykum waaleykum salaam soxna si ndox la soxla fi notinis fri lu nekk dang ko dee jenda ndo fay dalasi la xana kan bi mo nekk sa first time of being here soxna si force de moom man le rek la si xam dimbala ma ci ndox man ma raxas ci soli bi sama loxali li waaye soxna si kan moy sen euh, village wala men comité bi fi village fii tamit mu naan ma village yo sa fana fana bu dëgër wi corona sax mënalul la dara mu village fi de city la fii nekkul village te soxna si caaxaan lo ni caaxaanu ma suma deg la ñun nga xamne suñu dekk dëkk Kero Marsé da ngay nan ndox ba wala nga ken du la feeku deureum fi city la bla ngay ñëw fi da nga war a déglu waxi ni lu nekk xaalis moo ko fiy génne five dollars moo fi génnee ndox bi soxna si five dollars bi bi ma bi nekk sama poos bi ni moom laa fas yéene eh, jënd yóbbal yët ko gune loolu sama yoon nekkul nga nar koo jël ni waa soxna yow ñàkk nga yërmande de gay pour walum virus bi mota deklu ma ma jox la ko mané la coronavirus ñew na aka mo bon ci système dama ko sét be sétat bo day liñ warona tej la ti soli ba xaka ndek bul ko di defati ci populate bilahi pa ko rahasul fo mun di tolu rahasul dama né pa ko rahasul fo mun di tolu rahasul rahasul sala dama jema suma gil mama rahasul wax ma ngi ñaan yalla féké wéru koor wi wor ko bam jeex bu ko défé waxtu juróomi yeb duma ci moy ben woor ko wéru koor bi bam mu jeex teg waaw fas yi ne delu delluwaat dekk bi ndax fi buma fi dé ndax corona kenn duma ma gisati. yow ya de nu ma lay gisee dëkk ba duñ ma gis. nu ma lay gisee nii doo delluwaat dëkk ba. yo lolou la ci leer mu nan do delu delluwaat dekk ba. jank fi buñ la ci xasee ti ba baye yo ya ta jank ñun suñ dëkk dafa fees tepp ak. ndox bi doy na loo yus dafa bari trop sorry. Jomos ma five dollars yi da nga dem. mu naan ma sama five dollars yi sa tuñ mi nii five dollars yi nii téyel li. tuñ bi de du pour yow. dama ko soxlawul sax. sa kuru si bëri yi. waaw yow xam naa weeru koor bi sax doo ko woor. pour lan. ndax sa yaram bi amul benn yàpp yax kese la fi ne. yow em dama ak sa bi sox ba bëgg a Ah, waaye mu ngi mandar mandarga mi mom xamé nako waaw ah, ndax eh, ki la ja ja ja kas waaw ja kas la mu ngok <laughs> mandarga bi mom xamé nak ay li xamna warna dis de li waaw <laughs> waaw waxon nañ mako bo démé réew ndax mom lu ne nga fay gis mo tax gis na lu ne waaw li mom xana ñeto kay la nak bo bëgg yeul ci kaw rek ñatt ni ba ca kaw ay réew way réewum taxway ne paaku raxasul yow coronavirus ñëw na kenn talatul joxe ngénte kenn talatul dem si takay yow jaakay yëpp ñu tëj feebar bi nag ñëw na bilay walaay poñe diine moo waral ñu ngi kal lii moom dafa mel ni jàkka la rek xaw ma juma waaye ngay sànq xoolal rek ah jàkka juma yëpp ngi tëj fu mu ne waaye feebar bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla dindi ko ci ak lii waaye nii la politique da ngeen di bokk nekk benn waaw yóbbu dëkk bi ci kanam bu yaay jamee bokkee ak Ousseynou Daba ba ba def ko ci benn oto nii waaw loolu xéwal la waay xoolal man nu may xoolee sama bopp rek weer waa nga seet wecc waaw politique nii la fa ngeen di manko nekk benn ah salaamaaleykum na ngeen def yaa ma rek salaamaaleykum alhamdulilah ah góor bala ma waay bëgg ma raxasu fii tuuti. ah raxasu bala ngaa nuyoo raxasu. raxasa sa loxo yi raxasa sa loxo xanaa yëguloo lu xew si dëkk bi. raxasa sa loxo waaye yéen waa Banjul yéen lii lan la. ah lu xew yéen da ngeen a mirage rek toog. ah juróomi dërëm ma jotee am sama pool ndaw si jël na na na sama loxo ngeen bëgg a sama juróom bul ma raxas sama loxo. da nga fay foo fay amul fay ndaw si la ci ci ci bi ci boppi koñ. bitig ba fii moom amul fay raxas ba pare ñu wax ah. raxas ba kon maanaam du ma joxe dara ni ah loolu kay xiwal neex naa dégg. waaw fii moom amul fi yàgg waay. yéen bu ñu amoon ñu mel ni yéen. déedéet déedéet déedéet ah bu sëlmu. dafa am orosewel dafa am orosewel bu sëlmu. Ah, waaw ah Abdou Chawel Abdou Chawel ah. orosewel waaw mooy lu ñuy fóoti. ah. raxasul orosewel baa ngi nii billaay kon paaku raxasul bu ragal loolu billaay wallaay kon paaku raxasul dafa ëpp yomba tawat bi kon na fi jógee kon nañ ko ñaan coronavirus billaay demal sa yoon yow demal sa yoon kenn du la yaatal yaa fi gën a néew. man de xamaloon Omo Koch laa xam man ñun suñu dëkk Omo Koch lañ xam moom la ñuy def ci fóoteekaay bi ah waaye sëñ bi yéen moom yàlla rek moo leen di fay foo de ma ti fu la fay la bul fay de ah bul nangu bul nangu fay eh, xalaatuma fay fenn waaw bul fay yéen mu fi ngeen dëkkee ah. mel nii nag war na fii bëri ndax eh, manoo manoo ñàkk xaalis war a raxasu doo raxasu boo amee feebar bi doo ko wàlle nit ñi dëgg la kañ ah. dëgg la dëgg la kañ dëgg la kañ dëgg la def nii noonu la mm-hmm, mm-hmm. waaw fii nu mu tudd mooy Moscou ak Losta. Mosquito ak non Moscou. Moscou mooy ah, waaw waaw waaw wax ngeen dëgg. Klosta waa foofu ne sama mag boor yooyu la dëkkee e sama rakk kay man maa ngi juum sax ndax ki la sama xaay bi ah, kii na sama xel mi eh, kër Omar Sène waaw kër mooy jokkaadu boo demee ba jokkaadu noonu. wàcc noonu ci raaraa bi noonu dem. waaw nga romb nga romb kër jarga boo rombee kër jarga nga am kër Omarsen la. waaw waaw naa xam nga mbokk fu ne. waaw foog nga dem seeti ko. waaw mbokk moom du sori. jaxal bi dama la ñu si yow juróomi dërëm. juróom waaw. waaw léegi bu mu ñaari juróomi dërëm soo ko boolee ma nekk bi nga yokk si si yóbbal bi. waaw sëñ bi yow yaa def lii. bii waaw bu waaw du ma fay kenn bii mooy bu xonq bi bu xonq boo ko boolee ñaar mooy bi mooy bi xam naa ko waaw waaw waaye yow sëñ bi yow la yàlla fay waay sëñ bi sëñ bi yow ku la bugg mm. ku la bugg yal na fan waaye ku la bañ yal dee yow ku la bugg yal na ngeen seen may di baawaan waaye yow nii laay def ak yow ay moos lii lan la ay waa sama jën nga di maa xool bu di saay saay eh, sëñ bi yow yàlla fay yow xam naa bu ma demee danaa ñëw ñu waxtaan ñu pelloo waaw waaw waaw baax na dana ko dégg sa yoon corona coronavirus xaj nga ñu mbooloo corona coronavirus weer baa ngi ñëw weeri koor la billahi wallahi kon mu ngi ñëw coronavirus coronavirus ñëw na aka moo bon si système dama ko seet ba seetaat boo day liñ waroon a tëj la liñ waroon a tëj la boo day liñ waroon a tëj la bu ragal loolu waay sa xel ma jox la beneen xel ma ubbi suma xel ma xel jox la Ya, one, two. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yéen suñ mbokki seetaankat yeeg déglu déglukat yi ñun la Sahel entertainment ñoo ñëwaat ak yen si Covid 19 bini ni interview bi nga xam ne dem bir Banjul buga la ñaa woon naka la waa Banjul yi di dundé si interview bi man la sen harit sen dom sen raka di Cheikh Jaw tema ma fi tewal ki di ablay suare mom mi nga xam loxoma jaba a jàppa ba tey jii mënut a programme bi tay ji dañ lañ amalon ay interview si guddi si nga xam coffee bi non la dé dawé bir Banjul ak wa Banjul niñ ko dundé comme ka ñun Banjul lañ nekka ñu ngi di jëm Sénégal street jëm Sénégal fi nga xam yarona fi ba tay ji ni xamna fi lu bari waye nak nak mom ñi nga xamne ñu ngi bitim rew mom fu nekk fii dafa change because of wax diga neex yalla so xoolee tali kiri yep nga change fu nekk lolu rek santa yalla la ñu ngi jaajeufal tamit lolu si president bi nga xamne lolu la def bir Banjul fii ni so tay di ni ñu amalon lañ fi di Aji Fatou Aji Fatou di judu jëm Senegal magge jëm senegal yaro jëm senegal tay ji bëggon nañu xam nakalam nekk di dundé mom ak familem ak ñi nga xam ñoo ñooñu ñoy dekandoram yi so ñu dem alaykum wa rahmatullah aji fatou na nga def tay wa sahel entertainment ñoo defon surprise bi ñoo set ci la buga nga wax ñu yow yaay kan bala ñoo tale waxtaan bi may aji Mm-hmm. Oke, so Sénégal yaroo komnum màggee waaw. ok soo tey jii nii comme nu rek dañ la beta tay mm-hmm. mm-hmm. pour nga wax yan situation ngeen di du dundee si Covid 19 bii nii muy Covid 19 bi ñu ko coronavirus feebar bi ak Covid bi right now bir Banjul naka ngeen ko nekk di dunde, wa so lo si gis lan mooy si sa gis-gis waaw ñu ngi sant yalla affaire yi moom feebar bu ñëw la te ñu ngi ñaan yalla génnee ko fi si jàmm salam te respect neen décision yi gaay joxé yépp yi gaay tidal yépp daal si gatal respect neen ko nit ñaan ko def muy max yeeg yoyu ak di fi bi nekk di def ni yépp respect neen décision yi gaay jël yépp yi nguur gi tidal waye tamit dafa am leena lu am so demee l'hôpital mm. fi néka ni nii yow bu saku feebar duñ la atén ñu ngi laa di la daw sa yaram su tangé nga sihat ñu né da nga am covid 19 te covid te sihat ak yaram bu tanga yàgg na ci aduna bi fi ñu wa docteur ya ngi dawante nit ñi ñom ñi ñu wara fajj suñ ñu dawé kon dina miiti wa ndax ñom ñoo ñu war man barki dembo ndjay rek la suma yaay gañu buñ gañoo two weeks la am tay talata. ñu yóbbu neen suma yaay lopitaan médikiyaa leen ko njëkk a yóbbu ñu jógee foofu noonu dem kaani Kanifing biñ demee kaani Kanifing pour ñu dugal maire bi atten ko ñu ne eh, maire bi tes neen ko affaire saa ngi xaay yaramam bi daal dafa tànga torop mu ngi xaay ñu jógee foofu noonu ñu ñu ne leen waa jàppale leen ñu sax ñu wàccee maire bi dugal ko si biir lopitaan bi waaye docteur si kenn ñemeñut waaw ñu ngee daw foog ne maire bi dafa am Covid 19 te maire bi dafa am suga diabetes patient la sugaam bi moo xaay su xaayee yaramam bi daf dee tànga nii leen jëlaatee suma yaay nekkaa moom noonu jaabante boobu noonu ñëwaati Banjul ñëw Banjul lopitaan si leen ko fa admit mu nekk fa ba Tuesday mu gaañu man witness naa benn boo xamante ne nii benn jànq dafa ñëw indi papaam si lopitaan yi Banjul bi mu ngi paabaang si ambulance mu ñëw di leen ñaan pour ñu jël ko nanguwuñ koo jël docteur si nanguñ koo jël ñuy wax ne affaire Covid 19 bii nii docteur si euh, noos yaa ngee daw docteur si yaa ngee daw jànq bi dafa taxaw foofu di jooy comme xaleel ba afta si la gaay soog a wàccee paa bi dugal ko si biir boori fay fa clock rek paa bi gaañu xam nga yooyu noonu yëpp dafa easy wut waa nañ jàppalante ñun ñëpp ñoo nekk si Gambien bi docteur si ñoo ñu war a jàppale suñ feebaree ñun amuñ fu ñu war a dem fu dul lopitaan waaw kon suñ demee loppitaan docteur si dañu war a jël seen matuwaay yëpp ñu jàppale ñu dimbale ñu xam ne ku feebar su jaaxlee loppitaan rek la mun a dem ñoom ñoo ñu waroon a jàppale taxawuñu waaw buñ dawante dawante bi su amee du baax ñun ñëpp dañu war a jàppalante lii feebar rek la dañoo ñaan yàlla mu génnee ko fi waaw ñoom ñoo ñu mun a faj ñoom ñooy docteur si ñoo ñu war a faj ñoom ñoo war a jël seen matuwaay yëpp taxaw taxawu nit ñi comme ñoom waaw jërëjëf lii rek moo ma naxari moom laa amoon maa wax. waaw si loo wax noonu. pour laajaat la si dara. Mhm. parce que am na loo wax lu important. Mhm. nga ne maire bi yaramam bi dafa jékki-jékki tànga. Mhm. bu ko affaire yi attaqué. mu dem si lopitaan bi. defaloon nañ ko test wala jotuñoo def test pour xam lan moo ko dal. dem neen Medicare gars yi defal neen ko test ñu ne suga bi moo xaay. ñu ne suga bi moo xaay torop waaw su xaayee yaram bi noonu la dee def. la pare woon ngeen pour euh, admit ko foofu wala. waaw pare neen woon pour admit ko foofu noonu. waaye lan moo tax mujjee wuñ ko admit foofu test bee laab bi yëpp fay neen fa 4000 waaye ñoom dañu ne ñu yóbbu ko ñu rifaa ñu fële ne le kaani fi. so man li ma jaaxal lan moo tax ñu test ko moo daan 4000 si mhm. ba pare ñu rifaa lañ tu RVTH. waaw understand nga te ñoom receive nañ xaalis boobu noonu mhm. already. Mhm. so ñoom man si suma gis-gis dama foog ne dañ ko fa waroon a admit. Ah. admituñ ko fa de. wala ñoom dafa am symptômes yoo xam ne dañ ko gis si moom. bi óolu pour admit ko foofu noonu ne leen ndax yéen yéen a bindane maire bi dafa am Covid 19 ñu ne ñoom binduñ ko. mun neen ñoo jox benn USB boo xam ne suñ demee gars yi dineen ko connect si seen laptop yi dineen gis maire bi feebaram bi yëpp maire bi suga la am yaaga na di dem foofu noonu. xanaa dafa am fuñ bindane maire bi dafa am Covid 19. ah loolu loolu leen fa bindoon de. loolu leen fa binda bu ñu jógee Medicare. soo léegi boo leen ñëwee si lopitaani Banjul bi naka ngeen dundee foofu noonu ak docteur si nga xam ne ñoom ñoo fa nekka waa docteur si ñoom jàppale neen ñu bu baax. na si diggante bi atanoon nañ ñeen immediately. waaw bi ñu egsee atten neen maire bi. immediately parce que ñoom xaamee neen ko. ne foofu rek te lii daf ko dee faral di dal su suga bi xaayee daf dee collapse yenn saay ndax musoon na koo dal bu yaagut nii. ok ndax léegi after maire bi bu mu gaañoo. Mhm. amu leen si problème pour jot body bi. waaw amoon neen si tuuti problème. lan mooy problème bi bis si bi leen ko sul parce que dem neen biñ demee gars def sen test def yëpp ñëw suma nijaay yi tamit taxaw si ñu jox ñu body bi waaw ñu ne maire bi amut ko ñu jox ñu body bi ñu yóbbu ko sul ko. aftal si la last four days dal bim mu gaañoo daal si la test bi génn mu négatif ok na yéen tiitaluñ leen buñ waxee ne maire bi dafa gaañoo buñ gisee ne. am na fi nga xam ne bina nañ fa ne maire bi dafa am covid 19 su na waxuñ lañ ne yéen dañ leen ñaa jël si pour yóbbu lañ quarantine déedéet gars yi jël si wuñu parce que xam neen ne amul ko ndax def neen test yi biñ demee def test yi ñu ne ñu waaw ñu ngi leen a déglu ñu def test yi ñu ñëw ñu ne ñu dafa négatif so léegi misunderstanding bi fan la jógee léegi misunderstanding bi fan la jógee ah misunderstanding bi kañ si docteur si la jógee. kon dafa mel ni ah, fii nii la jógee Medicare. Medicare la ñoom ñoo bëggoon na indi maanaam jaxase bi. waaw ba pare ñu lekk seen 4000. Mhm. ba pare rifa lañ tu RVTH. ah kañ Medicare moom liñ dee def baaxul dañoo dem ñu test la nga yóbbu fa sa nit ñu test ko ba pare ñu jël xam ne kii du ko méeg ñoom bi ñu xoolee maire bi xam neen ne maire bi du ko méeg gars yi rifa ñu ñu dem kaani fii. fekk lekk nañ seen 4000 nanguñ ko faa te maire bi foofu noonu la doon tëdda xaalis bu bari waaye keroog xam nañ ni maire bi du ko méeg ñu génnee ñu ne ñu ñu yóbbu ko kaani fi ñu ne ñoom foofu fi mu nekk nii alaawuñ kenn ku fa tëdda waaye alaaw nañ ku fa tes ñu lekk sa xaalis. waaw ah dëkk moom li ñoo def moom is not doon correct dara. ah gaa ñi yéen yéen a ko dégga si num ko waxee si man suma gis-gis ma ne loolu ñaaw na lool boo xamee ne nit ki di ko méeg. naka nga ko defalee ay test leka four thousand dalasim just for one day just for one day nga lekka four thousand dalasim defal ko test xam ne du ko méeg ba pare nga rifa ko tu RVTH Banjul loolu du dëgg du yoon war nañoo seetaat suñ boppa te di yërëmante dañ yërëmante dafa war a daw si docteur si boo xamee ne du ko méeg just rifa lañ ko te bañ a lekka four thousand dalasim because of yéen leer na lañ ne kii munut koo méeg waaye bugga nga ñaa lekka mom té te lañ ko admit ci sen l'hôpital bi bo lañ xamé né yeen dañ disallow pour ngeen admit fa nit by this situation right now so yeen waru lañ ko test kon so lulu dal, dafa ñaaw ba pare pour laajaati la lenen so naka ngeen nekka di dundé right now ak coffee bi ten o'clock ñu né ngeen tida bu kenn génna ba pare luwaay da ngeen ko wara fulu so naka nga ko gisee situation bi because of yow da ngay def business da ngay jaay ebe so léegi yan wontel yan problem nga si am wala naka nga ko gisee yan mo ko gisee moom ah miiti nan ci wut parce que fim mu ya kan, nekk business yëpp a ngi taxaw waaw ñoo jaay dara wa ñu ngi tok di kabi mom easy wood mom fim mu ya nekk kan, nii dafa miiti parce que jaay yi doxut dara doxut te ñu ngi lo suñu keri te tam joxut dara ci luñu jàppa tamit Oke, Yena mo ko déggandoor fu mu right now affaire yi comme nu ko waxee rek mu ne fu mu business bi dohatut dara dohatut ñoom ñëpp a ngi toog benn place mënuñoo dem fen ndaxte kofiw bii nii waaye naka la mel gudisi si tida o'clock ko gisee mom boobu moom xëy na xanaa ñu aj ko ñeneen ñi nga xam ne tamit ñoom seen business yëpp guddi la xam nga am na ñoo xam ne tam seen business yëpp guddi la. Mhm. waaw comme jaaykati reer yee yooyu noonu ok euh, tey ñu fi ñu woon. Mhm. beetee la interview bii nii. Mhm. ñoom ñooy Sahel. Sahel. ñoom seen studio bi mi ngi Banjul fii nii. ñoom bugga nañoo xam lan mooy naxari waa Banjul yi. ñu feeñal ko ñoom day ñëw pour dimbale waa Banjul yi because of léegi-léegi da nga day am sa problème te doo am fenn foo ko wéyee mais bi soo taxawee si télé bi mhm. nga woy ko fa am ñu la mun a jàppale ndaxte am na ñi nga xam ne gëm nañ ne ñu ngay follow télé bi di saxel mhm. euh, ñoom pare nañ mhm. pour xam waa Banjul yi lan mooy seen problème ñu mun la ñaa dimbale because of amoon na baaka des kenn mënuta wax lan mooy problème am fu mu nekk nag am nañ fi tele te ñii ñooy Force TV bi nga xam ne ñoom ñoo ñëw biir Banjul fii nii pour dimbalé nit ñi seen problème yi so lan nga amone pour wax sahel entertainment waaw lan nga amone pour wax di len santat di len wax ne lii lu baax la li amutoon gambia waye fi nekkani ku am sa nahari hol. do ko denca dang ko koo wax ko kon ñi santa sahel di len gërem di len santa jërë ngeen jëf seen télé bi ci kaw kanam jërë ngeen jëf Oke, still now ñu ngi dem ak si COFEU 19 COFEU bi nii nga xam ne moo nekk right now ñu ngi ni ak si Jim Senegal street anak Sahel Network TV uh, am na ki nga xam ne mi ngi toog si kanam rek suma sista bu baax la ñu gën si Ramatu Adams Ramatu Adams mom fii la bidikam bi Euh, te bëgg nañoo xam moom it because of moom guddi la dee start business am bi dafa amee fii nii just like a mini market daf dee jaay eel daf dee jaay cuura hard working lady la te man jaama rek laa ko xamee si koñ bi te manit it bëggoon naa xam naka la nekka di dundee situation bi nga xam ne moom lañ nekka nii right now Sahel ñu dem si Ramatu laaj ko tey naka la fa demee asalaamualeykum sista naka tey de dañ la bete woon interview bii nii ñun ñi nga xam ne lesi nu ma ko ooyee muy di waa Banjul te waa Banjul ñoo moom télé bii nii di sexel Network TV tey jii ñu ñëwoon jëm Sénégal ndaxte dañ xoolaat ba xool gis ne am na sista yi nga xam ne ñu ngi dëkki si area bi nii ñi nga xamné hard working lañ té ñom seen business yëpp goudi la so ñu defoon tey ni and ak Sahel ñew pour waxtaan ak yow si affaire yi coffee bi ni nga xamné mo xapun right now so bëggoon nañoo bëggon nañ nga wax ñu yow la kan tuuti man waaw man la Ramatoulaye Alem di doomi Bola Alen nekkati heure senegal man suma business yëpp guddi la suma business guddi la waaye niñ defee Covid bi fum ne nii mënatumaa jaay mënatumaa def dara te si business bi laa ko yaakaaree fu mu ne nii dara dematul turu biñ ne Covid bi ten o'clock dafa shot teel dem tëddi bi tamit dañoo teel a dugga boo paree laaj bi dafa off tàngaay bi duñu rey yooyu duñu rey mun nañoo teel a dem tëdd ñu bàyyi ñu light bi wala ñu nekk ci biti ñu bàyyi Covid bi riite wante yooyu parce que kenn dugg tamit nga toog si mbedd bi di la def naka si noonu dafa doxut fu mu ne nii dafa dematul fu mu ne man mii dama feebaroon dem lopitaan wéruma waaye dañ maa nekk di ma tuy santoon di ma tuy santoon di ma am pour ñoo toog ndik aw ma xaalis pour dem fay private ma ñoo toog ñii di jël suma moom ñii di naan te loolu koregut lopitaan kenn du la faaleeti fu mu ne nii ko amut xaalis ku dem fay private duñ la atteel loolu yëpp ci la am nañu ko am nag waaye suma maas gi ko te maa ngi am idée yooyu yëpp la yenn ay dee yu bari ji ñooy wax ni yëpp am na covid bi yenn yi di covid faj si dee yàgg na fi balaa covid bi ñëw waaye tamit niñ ko doxalee nii tam dafa miiti ñu war a seetaat suñ bopp bu baax a baax a baax man nag sama business bi man itam mënuma ci dara gis nga fu ne nii tele ba nga beta ni wani ko non dem na bu yaga dem tedi wow li nga wa important na lol so yo ban façon business nga dee def man food stuff la dee jaay dama jaay food stuff dama jaay suma kaw food dama jaay suma cuuraa so na bala coffee bi daf dan dox bu baha baha ba bala coffee bi daf dan dox way bu coffee bi amee soo jaayee ya sax am ñoo xamné duñ ko jinda lépp ne nit ñi ragal nañ li fi fi feebar bi ba pare. so dafa mel ni right now yow si tëj nga nekkoon nii sax. si tëj laa nekkoon nii te jaayatuma kaw fu jaayatuma dara xanaa nit ku bugga ma ñëw ibi jaay ko sama food stuff yi ma tëjaat dem. so bëggoon naa laa laaj tamit leena comme yow ban façon feebar nga feebaroon ba dem lopitaan mënuñ laa atteindre. sama biir bi ñoo dee ñuuti te naa lopitaan ñaari yoon fu ne nii mu ñuutiwaat ma demaat. waaye tiisantoon gi mënatuma ko éeg wàcca gi mënuma ko ma toog nii dama wérut sax waaye nii dama dee manéeg nii faj si toog bi du baax covid bi moom daf ma yaaxal lu bari daf suma góor gi daf doon dem di liggéeyi sax tëj nañ seen foofu noonu moo mënut a toog ma nit ma toog du dem loolu yóbbu dara te kenn du la may soo si ñun su li ñoo faraatu ni moom dañ am ci sutura suñ boobu ak suñ njaboot loolu la ok so leneen li ma la bëggoon a laaj ramatu right now yow feebar bi naka nga ko gisee si Gambia bi naka nga ko gisee feebar bi de moom doy na waar moom doy na waar trop trop trop waaye tamit feebar bi am na lii am am na ba pare dañoo ñaan yàlla rek mu génn fi ak jàmm waaye tamit yenn yi comme tëj bitig yéeg tëj bi kenn xamut dañ war a bàyyi nit ñu ut ku ci yàlla boole ne ca ngay yàlla dogal ko noonu rek li ca des nag dee moom du ñàkk foog mu am waaye nag ni nga ko defee nii dafa métti tëj fu nekk mën a dem fen dafa métti dafa métti trop dangaa am sa mbokk mu dee nga war a dem senegal doo mën a dem boo day yëpp a ngi tëj dafa métti dafa métti trop tey na waar daar so legi o oh, naka nga nek di def ak sa family ngi tok ngi toog ngi toogagum nii de ngi yalla tuti tuti ma am ko ku ñëw jënda si kuyeka wala sardi ma jaay gis nga dama di def ci mbuus ni sax pour may dem di jaay ni am dara. comme di duga ci keri di jaay di duga ci keri di jaay. waaye na yoyu nit ñi dañ ko dé mëna a because of comme lekk bi doxatut. wa nit ñi dañ ko mëna a jënda. waaye li mos xam rek mooy jënd ci yow. waaw dégg nga dégg ngeen lu ramatu wax feebar bi nit ñi sonna nañ si te feebar bi man dama gëm feebar bi du li nga xam ne nit moo ko créé ndaxte feebar bi balaa la su fekkoon ne nit moo ko créé because of doo créé feebar. pare febar bi di sa family man mané lolu munta possible because of nit ku nek ken ken sa wajur na sister gom nga lolu ne febar bi dañ dee wax ne nit moko jagar american seek wala xam nga chinese yi yow lan nga gis si lolu lolu balaa bu ñëw rek la ñi ñaan rek di ko di muñ ko moytu te ñaan tamit kat yi dimbale way fajj kat bu la daw tamit nakal ku ñoo dimbalé fu nga ni demal l'hôpital lu no ci di duga ka génn yépp demal l'hôpital xëj nga xaw ma keneen de way man mi fever mi dem man hamna. naa te boo ko wéedee tam laajal keneen man dama ko bañ fu mu ne nii dematuma sax l'hôpital dama fa dematu suma ma sax duma fa dem so dafa melni so demé dañ la né covid covid covid so dafa melni right now yéen fever bi li lañ ci gina a sonal moo nekk yéen sa sen wirgu yaram munaatu la ñaa xam naka la mo demee. mënuñ ko. te si nawek lañ nekk tamit fébar daf dé yomba nit. si dëgg dëgg. surtout taw bi su la laalee. affaire bu garaaw. pak si bo bayé hel mak yu bari right now génnaatuñ ci biti. ñi nekk ci kër gi ñoo ëpp sax ñi nekk té mak yoyu ñu lu tamit den ragala dem ci l'hôpital waaw bo démé ñu ni la Covid. Pak ñu daw. so dafa melni sa yaram su tangé sa ñu ne Covid. waaw ah fii tamit. soo saxatee sa ñu ne la Covid. ah mo ngi ni soo léegi yow lan nga xamoon lan nga mun a wax si nit ñi ñuy ko muyta muytundeko comme pour affaire yi covid bii ni because of self gathering yi ak raxas loxo yeeg sol max yi yow lan nga si gis man sax su yàggee ci man dama dee soo ma gisee sax da nga xam ne maa ngi ñaxa maa ngi fiil dara ah, si man sax waaw maa ngi gis ni nga solee max bi sa but yi mu ñuy ceeñ te sa pression bi daf dee éeg. soo xoolee di gis ne suma kanam bi sa doon na di nii man wéruma waaye da nga amul docteur bu correct boo xam ne daf laa mën a topp. te ñu ne soo solut max dañ laa téye. waaw te di nga fay ñu ne max bi moom 1000 dollars la. waaw suñ la téye coffee bi comme si guddi boobu may 5000. xalaatuma ko sax parce que mag laa bëgguma ku ma teg gàcce si na kanam njaboot yi 7 o'clock damaa dem tëddi. dañ na ñëw taxaw nii waaye service man damaa dem tëdd li maa a wër yëpp ak li maa a toog dee la service ku la dem tëdd. comme business bi doxul dara doxul kañ. ñu wonjo yi doon jaay yëpp koo jaay fu ne nii du óoloon naan ci covid bu covid fu ne nii yëpp a yaatu. waaw loolu tamit war nañ see wax because of am na si ñoo xam ne comme les police yi seen boppa dañ dee foog ne ñoom dañ bañ a sol max comme li dal kii nii rek ramatu because of su solee max bi da ngaa gis ne prison bi daf dee iig ba pare daf dee miir mel ni kuy suffoquer so understanding boobu noonu tamit war nañ di ko am si ñeenay waaye tamit su fekkee ne loolu daf laa dal war nga di moytu tamit fi nga xam ne mbooloo mu ngi fa ndaxte óorut because of feebar bi dafa fiir bugguta bookaa benn feebar si luy jëmmi nit feebar bi dafa fiir ndaxte boo bàyyee xel right now Gambian si ñuy gën a dee ñëpp ay mag lañ te du Covid bi rek moo leen dee rey ñii léegi-léegi ñu ngi am diabetes comme ni ko fi first sister bi waxee ñii léegi-léegi ñu ngi am pression ñii léegi-léegi ñu ngi am feebar yoo xam ne comme mi ngi ci ñoom so immediately su la lii duggee rek tafla la sonal ndax te sa long si la dee damit su fekkee ne tréwnuloo ba pare yaa ngi mag yaa ngee toog place so mbuy ton ko bobu nonu war nañ diko am te di sol sun maxi sa yuñ génnee bala ñoo duga ci bir kër yi nañ di rahasu nañ di rahasu rahasu bi baxna ci lol sista bi nak daf de jay kaw foot fi dafa amé food stuff like mini market shop bi ni nga ñaa gis ni dafa jaay cuura te du dee taxaw xam naa si lu bëri man suma boofa pour wax leen dëgga waaye right now nii dafa bàyyi loolu noonu yëpp because of sooy jaay woon jo léegi nit ñi du ñëw jina ne ñu ngee bokka butéel bi ak keneen ak keneen si eboo nga raxasee ko olda saweli jine si eboo nga raxasee ko hiisi jine kenn jina tut lekkal right now even though ñu dee jaay reer si mbeera bi nii sax dañ dee soona léegi-léegi gars yi ay foo la ñoo génn a five o'clock miiti waaye comme que loolu leen teg ne mooy mun a wàññi feebar bi suñ réew mi fii nii di Gambia ndaxte Gambia dafa nekk réew moo xam ne réew mu ndaw la te nit ñi bariwuñ waaye ñu ne comme ka lii moo ñoo aar ah ñun tamit ñu gëm ko rek dafee ko noonu ndaxte man lu ma gën a tros moo nekk ne feebar bi dañ dee wax ñu fight ko waaye feebar bi kenn mënut ko fight ndaxte feebar bi fu mu jógee ñoo ñoo ñu uppa doole ñoo ñoo ñu uppa xel ñooñoo ñu upa halis te feebar bi fu mu ko ñooñu mënuñ ci dara te feebar bi ñëw na Gambia leena la gum, ndaxte su fekkee ne lu nit liggéey la mënu ta disturb the whole world man faguma lolu feebar bi nak balala la te si yalla la bàyyeekoo danañ delluwaat si yalla, ñaanaat si yalla, moom rek fi mun a génne feebar bi way fayet ko taxut fu mu jógee ñu ngee fayet mënu ta so ñun Gambian si fini fu mu nekk right now lu am pour def rek mo nekk di ñaan si yalla yalla gene ko fi te dekk bi ni dekk jaama la kilifay mag yi dañ fi wacha kilifay mag yu bari Gambia fini lañ joggé ko dem senegal joggé ko senegal ñew Gambia wow amna suma benen sista bi nga xamne ne tamit mi ngi nekké si area bini ni mi ngi tudda Kine Kine nak sista bu aktif la yeah because of waa Banjul la te juddu waa Banjul la te moom it bëggoon naa ñu laaj ko feebar bii nii naka la ko gisee si réew mi ak lan moo ñu suy musal mu wax ñu si lu bari tuuti ak tamit naka la gisee curfew bii ni nga xam ne ten o'clock da nga war a dugg sa kër jëna looy jëna nekk sa saay ñun la Sahel Network TV nekk ci Banjul Independence Drive nekk luñ fi kenn lu dul Banjul yi bugga ne ñoo xam lan moo leen naxari lan mooy seen problème li nubatu ngeen feeñal ko dara waratut fee nubu fu neka nekk lu nekk dafa war a feeñ te Sahel day ñëw pour feeñal yëpp Sahel pour ñëpp la kon donc ñu dem si ne waxtaan ak moom salaamaaleykum sista na nga ñun la waa Sahel ñoo ñëwoon te jii bete la interview bi nii pour nga te affaire yi feebar bi lañ bugg a waxtaanaa yow biir Banjul naka nga ko gisee waaye bala ñu see duga bugga nañ nga wax ñu yow la kan ndaxte léegi mom ken du dee xàmmee kenn ndaxte maxi ñu ngi nduroo ninja fu nekk ay ninja fu nekk xare rek a war jot ñu dem so bu ko neñ nga wax ñu yow la kan. alaykum ma ngi nuyu man la Fatou Kine Kambi dëkk Banjul juddoo fi yaroo fi ka tabakuru waaye ma ngi jëm Sénégal tabakuru la yaro fi waaw. ok so kini yow xam naa ne dang dee mun business yow tamit te xam naa ku xam dëkk bi nga so dama bëggoon nga wax ñu yan tolof tolof yow yow si sa boppa moom nga nekk di dundi right now ndaxte jigéen yi moom yenaay sun yaay yenaay sun yëpp bugga nañoo xam lan mooy seen problème tey si feebar bii nii ñu seet tamit naka la ñoo mun a waxee ak ñu mun waxal ndax ñu dimbale ñu ndaxte benn xel du hel li nga halat du mom lay halat li ma du mom ngay halat waaye it nuñ ko de waxe rek mag waxtan bu amé rek jibo dina am soo bëggoon nañ nga wax ñu yow yan tolof tolof nga nek di wantel si feebar bi nga xamne moy covid 19 laaj nga ma luma ne ñu ñoo jankonté fu nekk ni bari na torop bari na suñ la newul bari na rek dañ la nax bari na torop te metti na tambe suñun Bena, marché mënuloo fa dem ba am fa jën marché mënuloo fa dem ba gis fa sax kat sax mënuloo fa dem ba gis fa kenn koo wax ñu ne la corona bi Covid 19 Covid 19 do gis kenn. ñaareel bi nga dem lopitaan Bob mom, moo gën a garaaw barki dee moo njaay la suma oncle gaañu Oman Njaay mu gaañu barki dee moo njaay rek la gaañu tëddal ko am na one week lopitaan mu dem koma, mu dem koma mu gaañu ñu ko. ñu ne dafa rax Covid 19 naka la mën a raxee Covid 19 si bés boobu noonu ngeen mun koo xam te de foog naa ne dañ ne dañ la di yóbbu test la fourteen days ñu mun a xam ne am nga ko wala amuloo ko waaye kii gaañu tey si élection ñu war koo joxe ñu dem suul ko ñu ne dafa am Covid 19 loolu naka la mën a nekkee te tasuñ la ñu ne daf si rax te tasuñ la. ñun ñoo fa nekk doomam yi nekk fa doomam yi nekk fa doomam yi nekk fa di waal bañ ko jox ñu ne waa suñ leen ko joxee tam dañ ñu naa boore Red Cross ñu dem suuli ko parce que daf si rax. ba tey rek ñu dem suulu ko ñu yóbbu ko te bés bi mu waree bi mu comme ni suba la war a gaañ ñu bés boobu noonu te ñu ngi ko bi nag garab yëpp yëpp garab baa ngi jar 1005 ñu bind jënd ko garab boobu naanu si sax benn naanu ko si buñ paree garab yëpp lañ jël te jëna suñ garab 1005 dollars xanaa soo paree nga ne boromam am garab bi waaye dañ jël garab yooyu yóbbu ko te xamoon nañ ne du ko méeg lopitaan li fa nekk métti na torop nit ñaa ngee dawante docteur seen boppam ñooy daw nit ñi. dangaa feebar sax doo ñemee dem loppitaan dangaa nekk si biir nit ñi sax doo ñemee saxat te yaa ngi dugg si taw bi every time ndox su laalee sa bopp ba am na ñoo xam ne dañ dañoo soj te si time nawet lañ nekk soj bi dafa bari waaye soo tojee sax doo ñemee wax nit ñi dama soj doo ñemee tisooli doo ñemee saxat soo saxatee ñu ne la dafa am corona instant ñu ko la yow dangaa toog ba gis ñu ñëw ñu ne dañ la jël si parce que ñu danga am corona te doo yëg sax ndax saxat bi nga saxat si biir nit ñi kenn ñemee soo jaayee doo jaral jaaykat yi doo jaral ñu ngi nii fi ñoo liggéeyee dañ ko tëj two weeks ñu ngi nii toog damuñ liggéey tëj ko ñu ne stand by liñ nekkee dafa métti torop dafa métti saaf naan biti ki dangaa war a génn jënd sa doom lu mu lekk doo ko am fu nekk ni nit ñaa ngi sonn amatuloo loo jaay amatuloo loo def dara koo jaay mu ne la dama ragal doo du nangoo jënd xanaa ñi nga xam sax ñoo laa jàppale di jënd baa ñu dafa métti de fu mu nekk ni ku waxut dafa métti fekkate da ragal a wax waaye dafa métti torop métti na torop dangaa dem tefes sa doo gis jaaykati jën suñ jógee soo demee Sénégal ñoo ñu delloo la ñu ne la corona danga ko am ñu delloo la instant nga dem dellu ñu ngi nii saabteen nga dugg sa biir néeg doo ñemee génnaat ba suba yenn saay sa dangaa war a dem a si bitiki sax fekk bitiki yëpp tëj noonu nga fanaane yàq sa njaboot ba suba wala nga ut mburu yu fanaan nga poñsel leen ñu lekka li de ku waxul métti tamit metti na feebar bi na yàlla ko fi indi nañ nañ ko sante yàlla yàlla boobu moom mooy tege ku nekk mooy teg jaamam natu na nañ ko sante yàlla waaye suñ toogee ñu naan nit a ko créé nit a ko def nii nit a ko def nii loolu yëpp ñi wax rek ñoom ñoo xamut ne ne sant yàlla nag rek di sant yàlla yàlla génn ñu feebar bi fii si biir réew mi waaye métti na de métti na si waa ñu métti na si jigéen ñi métti na torop dangaa dem marché sax war a dem uti dem war a dem jaay fan yëpp ñun marché laa dee dem du ut loo dem raba raba waaye soo demee da ngaa fekk bitik yëpp tëj nañ ak ko jaay ak lan nga jënda ñi nga xam sa ñoo la di dimbale jox la ay yena spirit nga dem jël ko diko lepp la am ci sa 25 ut na dundalee sa njabot dafa metti torop dafa metti torop dafa metti waaw comme yena no lañ ko déggee nonu diga diga dëkka bi metti na Gambia metti na waaw diga diga Gambia metti na ñun ñu fi nekka ñoo xam Gambia naka la métti sista yi nii yëpp dañoo business sista yi nii kenn yebut lañ te sista yi ko si gis ñoom ñëpp ñu ngi am jëkkër ñu ngee daan seen doole bugguñ kenn yeb lañ waaye dafa am topic yoo xam ne daf ko rées dafa important te bugga naa ko koo laaj bu baax a baax a baax mu tontu ma si li mel ni jën seer nañu ne li mel ni marché bi nduga métti na saaku liñoŋ wala saaku pompiteer métti na si dëkk bi fu mu nekk pour nga génn sax am loolu sax daf dee nekk problème ba pare it naka nga nekkee si lopitaan bi ñu war laa jox garab joxuñ la garab ñu ne la da nga war a dem jëni garab te garab yi nekk si biir lopitaan bi ñu jël ko because of amoon na time boo xam ne euh, su ma juumutee am na benn foog naa ministre bu woxoon ne docteur si seen garap garab yi lañ ngay jël farmasi. ko sen pharmacie because of docteur bo gis noos bo gis mi ngi amé pharmacie naka la Gambia di démé naka la Gambia di démé Garap yu ñu ñaa supply pour ngeen war ko jox ñi nga xamné ño ño am tawat ngeen jël garap yoy diko yobou yóbbu si seen pharmacie diko di jaay kañ la dekk bi di dem corruption bi ni dafa wara jeex Gambia imaginal ki mu ne ndijaayam dafa tida si lopitaan bi be dem kooma ñu tiaj ko ay garap ñu dem si pharmacie bi jëne ko fofu nonu té lolu ku dem sa garab bi lapitaan yi la mu fay ci 1500 ba paré mu gañu ñu jël garab yoy ñom seen bopa buñ ko joxuñ ko ñi nga xamné ne family ki nga xamné ne ñaaka bakénam ñom ñu jël ko yobu ko seen kër yi lolu dafa ñaaw lolu dafa ñaaw fini nak nag dëkk bi ñu fi sonna dañ bari de nit ñi dañoo muñ rek gum yàlla rek ak bañ ku leen yapp waye ku wone gambien ci sonuñ wala wa banjuli ñu sona bare wuñ ah ya ngeen nax sa de so pour ñu demande ki ne ma laaj la so sandi ndijaay bobu nonu because of dafa am lo xamne dafa miti te nit ñi dañ ko wara a hel muy dee dee miti na nga wara a ñu ne la da nga am corona te amuloko ko ñu war la jël la ak nim tangé c'est ça lolu na de so naka ngeen def ak gaay na nangu woon nañ pour jox leen niwam bi wala nanguwuñ toon waaw bi fa gaay nekkee ñu ne kii am corona parce que sings kañ nga tëral lopitaan dem kooma ñu ne dafa am corona biñ fa nekkee di wax di wax ñu xam ne ñii jaaxaanuñ bi mu gaañoo si électrique la ñu jox niiw bi ñu suul ko si bés boobu noonu five o'clock lañ ko suul waaye bala mu lañ ko bala ñu lañ ko woon a jox balaa gaay di lañ ko jox na amul lañ fa ben xëccoo wante ak ah, wante jot dafa am kay ak doomam yu yi xëccoo wante am na fa waaye bi ñu xamee xëccoo wante bi métti na ñoo xam nañ ne ñoom ñun ñoo nekk si suñu right after si leen jël nii bi ñu jox ñu ko ñu ne waa léegi jox nañu ko de wante dañ ñoo boolee Red Cross ñu ne waa ñun still ba tey Red Cross ñoom duñu ko suulal su ebo mun ñoo toppa waaye Red Cross dañu ko suulal ñu jël ko sanga ko waa defar ko comme ñu ko defee ñu yóbbu ko ñu dem suuli ko. dañ ko lumas ak mbuus wala. lumasuñ ko non ko ak mbuus. ah after dañ ko bàyyi noonu. dañ ko bàyyi noonu waaw. ok ok ok ok ok li nga wax. important na lol important na lol because of ñun li lañ ham, xam because of ñun wa Banjul lañ te ñun fognane na né docteurs yoyu nekk si l'hôpital bi ak nurses yoyu noonu ñun ñoo lañ fa ndax té dañ lañ fa tek pour ku fièvre ñu fajj la waaye naka nga fièvre ñew ñu la daw xana bon bu yagge moy Gambia yi Gambia jeex. Gambia jeex. Mhm. so marché bi naka ngeen di dundi marché bi because of soble serna pompiter serna naka ngeen nekk di dundi. marché bi metti na torop. marché bi moom metti na trop seetal ne soo waree dem marché amuloo ñu jaay la ñaari liñow 25 jën ñetta ñu war la koo jaay ay 150 dafa metti trop si ñun baadoola yi dafa metti so comme man si lu ma la mun a laaj because of xam naa ne dooma nubu mhm. te gum naa ne yow hard working sister nga te léegi-léegi sa dang dan dem marché di ndougué 50 100 dollars mhm. wala 150 waye dafa melni ni léegi 100 dalasi sax tout la ndougal mm, mm, mm, dedet muna tout la ndougal mané la sa sax 100 dollars sax muna tout la sa sakir yow yak sa njaboot fu nekkani so wara spend ndéewa rek rek rek rek di nga spend ay lan 150 ay wala 175 pour yow sa famille pour yow yaa sa famille rek so dafa mel ni bagage yi tamit amna na si pël yoo dañ ko xala yooka yëpp a marché fu mu nekk nii yëpp a ko métti na torop. soo dafa mel ni ñoom tamit comme Vic ba tax ñoom tam ñu ngi soxoree nit ñi waale. ah yëpp mun na cee nekk wala nga xam ne tamit ñoom tam xëy na fañ koo jëndee tam moo seer waaye ñoom tam waruñoo seet rek ne si Covid lañ nekk warañ war a wàññil ba doole ne xam nañ ne marché bi xëy na ñu am am tamit waxuma ne ñëpp am nañ ne waaye ñu si ëpp ëpp doole bi yëpp ay ba doole lañ kenn amut moo tax dañ war a jàppale ku nekk. wante xu seetare yow ba dula dangaa dem marché doo xam sa loolu ëpp dula dangaa dem sa jënd sa ay kecax nga ñëw toggal ko sa njaboot gi ndax yoruloo ndax jën doo ko am léegi kobo sax moo gën a seer waxatuma laa jën bu weex kobo marché moo gën a seer jën bu dangaa dem saami jën saami kobo foo saam ñu ne la wan hundred dalasi wala fifty dalasi léegi yow su fekkee ne yow seetal sa bopp yaa ngi amee hundred dalasi nga war koo dem duggee soo jënee saami jën fifty dalasi lan nga jina ñaata poti malo nga wara jina sa njabot ak lan lan nga def ak jimbo yek yoy non xonda dara ci la ndugal 150 mënu la ndugal 200 mënu la ndugal dafa metti torop fu nekkani so amuté sa ko malo sa kër poti malo nga jar ay ay dalasi ay 650 7 dalasi nga wara jina ay 10 cups fekke ngeel bu mag la nga wara jina ay 15 cups wala ay 16 dafa metti torop dafa metti de lu ñoo dund dafa dafa metti te bañu dafa soxla ndimbal ngeen jaafale tamit jigen na jigen yee gën a soona jigéen yi dañ soona torop waaw yéen a ko degandor ci bi wax na yaram lol dawna yaram te man amna li nga xam gis na ko ci su fekkee ne lessee da nga bëgga a nit ki because of ñun ci wara a Banjul dafa bari ñun ci wara a dafa bari torop torop torop waaye koo war a dimbale ko jëlee ko si boo ko ko joxee mu téye ko émale ko familleem soo ko joxee thousand dalasi mu génnee hundred dalasi miiti na su ñoo dimbale nit ñi nañ dimbale ñu ko yee lool am na si ñoo xam ne jaruñoo dimbale ndaxte ñoom kaar macha allah liñ bugga am nañ ko suñ leen joxe dara pour nit ñi nañ ko jox nit ñi te yàlla tax ndaxte dëkk bi dafa métti soo dugutee si biir dëkk bi doo dee mun xam kan moo ñaaka ak kan moo am de because of waa Banjul ñoom bañkat lañ de waxuma la Gambien si sax waaye ñun ñu ngi amee jikko yoo xam ne real ay bañkat lañ mun nañoo xiif ba bugg a dee soo ñu gisee nga ne xoolal kii nii moom xiif moom waxut si dara ne leen di jàppale nit ñi te ki nga xam ne yaa nge seetaan programme bii nii te bugg ngaa jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk si mbeera gi ñoo xam ne dëgg dunda bi métti na ak ñoom right now mun nga koo jaarale si Sahel network TV si Banjul fii nii pour laajaat la leneen sista yéen seen liggéey bi ñen ñoo ko tëj seen boos moo ko tëj wala feebar bi maanaam moo tax liggéey bi tëj ndax doxatut ndaxte kenn ñu watut ak ban façon liggéey la. waaw man si université laa dee liggéey si lopitaan bi si université si school bi foofu laa dee liggéey foofu laay clinique waaye gisuloo kenn ku ñëw school amul student noosi amut. kan ngay dem di kilina motax suñ boss mune nañ tok toog segam l'hôpital ni docteur sen seen boppa daw waxatuma la na school student yi wara ñoo ñëw non di jaga kan ngay kan ngay kilina ñu tek yëpp fu mu nekkal dañ tok stand by ndax lockdown bi ni motax ñu neena na tok ok lolu dëgg la waaye tamit luma la si bëggoon laaj mhm. comme que students yi dañ ne bu kenn so naka nga gisee drive ay sen moto yi fu mu nekk parce que ñom nañ ne right na dañ war a load seen moto yi ba mu fees comme ni mu meloon balaa Covid bii nii di dugg si te yow da ngay dem kombo di ñëw every day. te yow naka naka nga gisee situation boobu noonu ba léegi na loolu uur na wala uurut ba léegi. Eh, loolu moom ba tey uurut driver yi ñoom tamit nañ ñu jàppale ñoom tamit uurut. te tamit tamit paas bi tamit dina gën a yokk dina gën a métti tamit su ñun lii kenn mënut a xam lu ak booy wax ak booy bàyyi uurut nit ñi war a dajaloo ñi ngay wax nit ñi dajaloo ko bi uurut. léegi suñu war a dajaloo tamit dina métti parce que doo xam kan moo ko am ngeen ñëw jégalante lu ko doo ko mën a xam moo tax tam comme nii tamit baax na si ñu ñoo def nii baax na si waaw ñu sori wante nii tamit baax na si ndax dañoo aar tamit suñ boppa ndax fu mu nekk nii dëkk bi dafa métti soo saxatee sax ñu ne la Covid kon léegi suñ war a dajaloo ko kon dafa gën a métti si ñun de dafaa gën a métti si ñun driver ñoom tamit ku nekk tam am nga sa sa kër. xëy na ñoom tam ñu ngee jànkoo jànkoontal lu métti moo tax ñoom tam ñu ngee kaas comme loolu loolu tam dëgg la dafa métti torop loolu moom dëgg la waaw lu ñoo moom dëgg la waaye tamit tam ñoom tam nañ seet ñoom tam seen wér gu yaram ak seen wér gu yaram njaboot ndax suñ defee noonu xëy na ñoom tam seen waa këram wala doomam wala jabaram mun naa dugg si moto boo xam ne yàlla rek a xam waaw kenn xamul yàlla rek a xam moo tax ne ñoom tam nañ wara a ñu bàyyi seen xel liggéey bi dina métti tamit de fu mu nekk ne Covid bi si ñëpp la métti du si daraay fay du si jaaykat du si liggéeykat si ñëpp la métti si ñëpp. la ah, métti. kon dafa mel ni moom dégga dëgga ah feebar gi de moom bu ñëwee Gambia léegi fu mu nekk almost maaj ba léegi suma ma dina nekk ay six to five months plus daal. te right now li ñoo dundee métti na te boo ko xaymee li nga xam ne moom lañ ñu jox. dafa mel ni war naa dem ba Edmonds Edmonds yaa ngi toog benn place defuloo dara Edmonds yaa ngi toog benn place demuloo dikkuloo liggéeyuwuloo loolu métti na de ba pare dafa am lu ma dégg si docteur si right now ñu ne ñoom feyuñ leen seen salaire yi moo tax ñoom it fu mu nekk duñ dem liggéey ndaxte dañoo dem di risk seen life after si te duñ si jëlee dara because of ñu ne moo daan 50 doctors si lopitaan bi dañ am corona ndax yow gum nga loolu ndax fifty doctors yooyu noonu am nañ ko waaye tamit soo gisee ne fu mu nekk ñoom ñëpp ñu ngi daw léegi ñu ne ndaxte ñoom fayuñ leen seen salaire yi because of man dégg naa ñu ko wax te gis naa tamit si media bi kan moo ko doon rées ku ko kaas soo yow naka nga gisee loolu na mënuñoo sacrifice Melni soldari yi comme nuko gay de waxe Gambia mo leen ñor mhm. waaw na ñom tamit ñoo sacrifice nonu rek pour ligéyal nit ñi té baña daw ndax té feyñ lañ sarare yow naka nga gisé lolu waaw loolu ni mako gisé wa ah, <coughs> waaw loolu tamit dé metti na waaye ñom tamit nañ sét wér yaram yi dëkk bi ndax suñu féké ñom gambia Gambie jiddu dëkk bi lañ nañ sét wér yaram yi dëkk bi ak seen yaram yi family parce que ñepp ay fu nekk la mo joggé yow soo ne doo ñëw liggéey si ndax fayuñ la léegi sa waa kër feebar loo ko fajee ak lu moo fajoo moom dafa nekk ci kër gi moom tam feebar ba dee ñoom nañ seene lii dal nit ñi seen biir kër yi rek ñoom loolu moo leen di dal ñoom seen biir kër yi kon ñoom tam foog naa ne waruñoo seet loolu noonu xëy na Europe ñu docteur si bari ñoo xam ne fayuñ leen te ñu ngi dimbale seen waa dëkk kon ñoom tam nañ seet ñu dimbale seen waa dëkk ñu faj nit ñi ndax ñoom lañ fi yaakaar ñoom tam ñoom lañ fi am di wax ne nguur gi tamit ne docteur si suñ ñoo jàppale si boor bi ñoom tam nañ leen jàppale si boor bi le xëy na li ñoo liggéey si lopitaan noonu lañ war a dundalee seen njaboot gi si seen biir kër yi loolu lañ war a dimbalee seen famille yi ñii di dimbale seen doomi ñii di dimbale seen jabari kon ñoom tam nañ leen jàppale su dul suñ leen mun ta fay yëpp sax ñu as lu ñu leen jox sax ñu yóbbul ko seen famille bi ndax ñu mun a jàppale waa dëkkam ndax dëkk bi sonn na torop kenn mënut ta dem lopitaan dëkk bi ñuy dee ëpp na bari na ndax soo feebaree doo mën a dem lopitaan yaa ngi nekk si kër gi di struggle di struggle di struggle di struggle benn la yàlla yóbbu ndax doo ñemee dem lopitaan parce que soo demee lopitaan duñ la jox garab bu laa faje benn dang dul gis docteur sax ba mu laa jox garab yaa ngi nekk si ker gi dafa metti torop ñu si kër gi ñu bareen si kër gi ñu ngi feebar waaye ñemee ñoo dem lopitaan ndax soo demee lopitaan doo gis docteur bi laa maa leen di ñaan ngir yàlla ak yonente bi nañ dimbale nit ñi nit ñi soona nañ soona nañ torop soona nañ nañ ñu jàppale ñu dawal yërmande waaw nañ dawal yërmande rek te jàppale nit ñi nit ñi sonn na nit ñaa ngee feebar nañ jàppale nit ñi rek waaw di wax nguur gi tam nañ jàppale docteur si docteur si tam dañ jar a jàppale ñu ngee jàppale nit ñi nañ jàppale docteur si tamit ñu fay leen ndax loolu daal fële tam mooy daal ñi ñoom tam xëy na loolu lañ yaakaar pour dundalee tam seen njaboot gi waaye ñoom tam nañ ñu jàppale rek xettali ñu na nit ki tam doo wax sa bopp ba pare xamuloo moom tam la moo dundee ca kiram moo da nga ñaan rek ñom tam ñu ñaan le ñu fay le ñun tam ñu ñaan man man mi loolu man suma bop sax gis na ko ci internet bi sétal na ko ci media bi man mi sétal na ko kéro rek ba ma ngi ka mané ñom tam ñi ñi ngey liggéey di dimbalé nit ñi ñom tam ne dimbalé ñu fay leen way di leen ñaanaax rek nañ jappalé nit ñi na nit ñi sona nañ da nga dem l'hôpital docteur di la daw so way docteur dimbalé ma mu ne la ma ngee ñew do ko gis ma ngee ñew bop ci nga ko gëjë gis wala yena saa nga dem lopitaan wala jëna ticket ticket sax pour nga jëna ko pour nga gis ki la jaay ticket sax problème la polyclinique pour nga gis ki la jay ticket sax problème la time bi fum mu so Sabo feebaroon ne sa bop di la nga na xaaral dem polyclinique so demé do gis sa ben docteur do gis ken ken nga do gis suma dombi bi keroog la ko moto pel ñu dem la sur l'hôpital bi suma dombi bi bi moto ko pel ñu dem sur l'hôpital bi pour ñu gis docteur pour mu xoolal ñu tankam bi rek gisuñ ko ñu fa bori tiri la fa nekk ma fa ba bori seevin dama si man suma dombi bi ak suma jëkkër ak suñu waaké suma rakay gisuñ sa docteur ba day ñib si ñu dem ci pharmacie bi nekk bori xaarintit fofu lañ ko jëndalee peen ki la jë utal ko froté froté tankab yalla ba baax damul dafa fooxan rek dafa foxoj ñu ut ko ko uli ku ko foxojal délo ko gisuñ sa docteur docteur pour nga gis ko sax problème la l'hôpital dafa metti dé so demul l'hôpital la doo xam li fa nekk wa ñun mi dem l'hôpital ñun ñu fa nekk xam nañ li fa nekk ñu ngi ñaanal lañ leen ñu jappalé jàppale nañ waa ñu jappalé jigen jigen ñu sona nañ sona nañ torop waa soona nañ soona nañ de suñu waxu soona nañ léegi yuuxu rek a ñu dese fu mu nekk nii te su yàggee dinañ yuuxu ngeen jàppale ñu rek te soona télé bi da di leen ñaanal ñii xel di leen ñaanal ndax fu mu nekk nii yéen di ngeen tax sa ñu bari ñemee wax seen problème man bi ma xamee suma bonte musuma wax télé musuma taxaw si télé di wax foos mooy bii di leen ñaanal yàlla yan na seen télé bi yan na sax ba nekk ay télé télé si biir Banjul si barke yonent bi. waaw yéen a ko déggandoor kooku mooy Kiné Kambi di juddu jëm Sénégal dëkka jëm Sénégal yaroo jëm Sénégal magee jëm Sénégal euh, te boo bàyyee xel right now Gambia yëpp benn problème ba ñaari problème lañ am te bugga nañ ko ñu si jàppale ndaxte dika bi dafa métti benn lopitaan bi liñ see kaas bari na te nit léegi kenn wératu sakoon bi nit ñi liggéey problème la nit ñu ngee dundee xiif nit ñi bisaab la ñoo añee bisaab la ñoo reeree te loolu dafa métti leneen li mooy ne leen di jàppale wante ñi nga xam ne ñoo am te mun a jàppale nit ñi ne leen di dimbale gaay ndaxte balaa bii nii ñëpp la sonal ku wax ne sonalut la rek danga wax li la nee te ñëpp xam nañ ne am na biir Gambia fii nii mu fi bari na fi lool waaye tamit ñu ngi ñaan ndimbal pour waa Banjul yi ñu ngi naan ndimbal docteur si comme que waa Banjul yi ñoo lañ fa teg wala Gambia ne doomi aadama yaa lañ fa teg taraay lañ ngeen liggéey because of soo demee tey polyclinique doo fa fekk docteur every Tuesday la docteur yee noos di liggéey polyclinique loolu métti na nga war a am sa métti tooga moom ba Tuesday yàllaa xam naka la moo mel ak yow mim dal rek yaa mun a fiil métit bii nii si sa biir yaram fu mu nekk lu ñoo def dañoo doxee nii si kanam ak yéen am na suñ benn paa bu fa nekk am mu ngi tudd Onkul Mbay Tele ñu noonu lañ ko xamee depuis time yi xale ñu laaj ko moom it ndaxte moom ndax dee mun a ubbi ba time bi time bi la dee gën a mun a liggéey télé guddi gi moom dafa mel ni guddi gi la dee sawar waaw ñu laaj ko moom tamit bis euh, mi naka la nekk di demee right now ak covid bii ak boysam yi waale so foofu lañ bugg demee te yàgg na waaw ana max bi waaw so fu mu nekk sista bi ne dafa am lu mu faate school tëj na daara tëj na xale yaa ngi toog every young Gambian dream of a university degree. He wants a good paying job after graduation, a pretty wife, and ultimately. Thank you very much. My Dream Home. And that is why you need to visit Universal Properties. We specialize in customer satisfaction. We listen to every of our clients' needs when we show the properties to our clients. Before you know it, you hear the client saying, I like this house. This is the room that cuts my heart. And most of the time, they cling to the door, never to let go. Most clients want to close the deal right there. And that is why we always have their contracts in the trunk of our cars. We work at our client's pace. No haggle, no hassle. We're waiting for you at our office in Kairaba Avenue here in the Gambia. Coronavirus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. lislaam bi waaru xuli nafsin saa yi xatul mawti deebi moo ñu teeru jógal julli jaamu yàlla nag boo deewee moo lay teeru fagaru leen balaa feju xodeeku leen balaa lakk raxasu leen balaa takk genn jàmm la ñu wëgg fu ñu dugg ñëpp di bëgg pandemic is fucking real a take it as a deal te nag jàkkee la ñuy tëj naaj bi tàng ñëpp di daj mburum sarax ànd ak na jaaka ye jotaayi dénka nañu raxasube taayi government bi tëjal lañu booda bi banga sa loxo bi ma ne may mamita asalaamualeykum doy na file raxasu leen ma ne ma ne war na ku ne mag wala xale ma ne wax ko ku ne lii de géttin nañu li de tardel nañu lii de sonal H Squad ñu leena a fatali a fàttali ñuy raxasu di bay téré yi di meyante one meter corona lu am la is something real yeah stick with us salaamaaleykum salaamaaleykum ah kweku kweku haris johannes kweku haris Moy Chat, moom la gaa daan ooyee caat maa ngi dëkka six combo street mooy fii Banjul clearly fii basically moo to come to néeg aussi because um, ñoom ñoo dee gën a jënd product bi ñoo dee gën a suñ mburu bi raada so ñoom laa consider as suñ number one client suñ neighbors ak people around us raada price bi moom comme yëpp daf dem la nekk same waaye ñun ñu ngi jaay five dollars pour suñ normal bread bi sweet bi three dialysis waaye tamit du dee nekk comme si price day nekk comme si quantity mbuur bi ak quality bi comme lu mu dee am si biir parce que da gis ne comme ñun suñ mbuur bi comme dañ fay def um, bota ak stuff like that waaye comme yeneen bread yi du dee am loolu comme just plain bread la ak stuff so product nekk comme the main thing so prices yi mun naa nekk same waaye product bi ak li fi mu di nekk benn moo leen nekk difference inspired by dad. um, suma papa moo ma si dugal mau moo ñu mau groupe moo ñu train moo ñu jàngal moo ñu woon yon bine kom. They saw it dus Kom ni leen waaye ting si dafa yomba rek Kamu nggak? da kami tamit wala ñu cooy dañ téye nit ñi di leen dóor comme yooyu noonu xam nga cooy dañ téye nit ñi di leen léegi léegi xam nga ay ñaari ini xam mooy loolu yaa ñun la woon ñun la di waa Sahel dañ demoon break ñu waat nañ ànd ak yenn si programme bi nga xam ne mooy curfew bi biir Banjul fii nii right now ñu ngi Spalding Cove si hood bi boys yi ñu ngi fi ghetto bi muy firehouse dañ ñu si waa firehouse waaye boy ñoom waxuñ dara si télé bi ci télé moom dara lañ si waxoon gis ngeen gaay soo bàyyi xel boo yaa ngee daw ñu ngeen tasaaroo waaye ñu ngi fi am suñ benn broda moom dinañ mun a waxtaan ak moom euh, bro naka ñun la woon waa Sahel network nekk biir Banjul fii nii ñoo defoon nii beetee lañ interview bii nii pour affaire yi Covid 19 bii nii ak curfew bi nga xam ne mi ngi xapun biir Banjul right now euh, tur bi bro. turbe Aliou Aliou ok Aliou so ana waay si ngi cool sa boy ñom ñu ngi ñew way ñom ñu ngi daw ci hood bi ni nak ñu né xam nga rek télé mom dara lañ ci waxut so dañ bëggoon nga wax ñu anyway covid 19 bi ni naka nga ko gisee muy coronavirus biir Gambia naka nga ko gisee corona bi lu gay yi wax daal comme que ngi dal daal rahasu ñuy tëddi on time tamit waaw waaye ñoom tamit seen réet bi na def nañ ko si booy am comme ñan noonu comme ñuy réet daal si wàllu comme coy yi maanaam coy waaw police yi comme nagaay teg daal comme xam nga bëggaay si kaw daal waaw loolu la am pour ok so dafa mel ni sometimes danga dee mun a gis gars yi ñuy agressif si kaw nit yi Oh, na yuwel nunu mi ngay happen bir banjol fi ni na foog nga foog nga lolu no gisaguma ko nag way ma ngi gis ay video yu mel nonu da ñu ngay dóor nit ñi di rité nit ñi di leen. nga té ñun expect guñ lolu so yow lo amone pour wax ci lolu ah naka daf lu village rek suñ ñëwee waxa yow nanka simple and easy yobula shin lafayen nufayen la nga fay waaye dóor bi nii moom na mooy loolu na seen xut bi fii nii na booy ñu ngi respect luwaa yi nga xam ne moom lañ sartaal waa Banjul yi ak Gambia yëpp muy nguur gi na gaa ngee def rules yooyu noonu di sol seen mag si waaw booy moom ñu ngi tëddi ñu ngi tëddi on time kenn du fi dee des. na bala ñu dee toog si xuut bi tamit dañ dee raxasu. waaw. dañ dee sol seen fix mask yi. waaw even hand sanitizer sax booy am seen poos yi ah? ok na yow yaa ngi amee benn raad naa sa bi. non man moom ñaareel wu ma ah, ok soo léegi lan nga amoon pour wax waa sexel mi nga xam ne ñoom ñoo ñëw Banjul fii nii buga mboolem li nga xam ne dafa nubu mu feeñ. bugg xam lan moy problème nit ñi bugg a xam lan la nit ñi di wantel ci seen gox yi lan nga amone pour wax gaay waa Sahel Network TV man mom naga employé youth ci nu job xam nga si covid bi passé nu jappalé youth ci yépp waaw xam comme ñan nonu boy dal youth yo xam ne ku nekk si Gambia bi dal nañ leen jàppale rek xam nga dafa mel ni right now hood bi fii nii booy yi ñu ngi toog ñu bari liggéeyuñ things yaa ah. ngi miiti waaw ah, boy yu bari leen soxla job xam kan, nga job si bari woon na so after covid bi ne leen traay nu daf job si bari ibi ay companies booy yëpp job xam nga ok loolu amoon ok dafa mel ni right now hood bi boy yi fi dee toog tri kota bi ñu ngi need job waaw am na ñoo xam ne problème waaw am na ñoo xam ne xam nga nekkuñ di job so yow yaa ngi ñaan ñan nga bëggoon a ñaan pour ñu dimbale booy ñu joob ñan nga buggoon a ñaan. waaw ah, waa Sahel rek laa bëggoon ñu jàppale nu si mu àgga fu mu war a àgga yut si yëpp am joob. ok kooku moo nekkoon paa bu baax mi ngi dëgg si huut bi fii nii muy Aliou Aliou sorry Aliou soo léegi ñu ngi fi am keneen suma beneen broda muy Baye Thiam moom xamee naa ko bu baax si area bi ñu ngi Johnson yi Spalding Cove ak Wellesley si hood bi fii nii ñu ko ooyee firehouse ghetto bi so Baye Thiam moom mu ngi fi pour wax ñu you know problème yi nga xam ne moom la gaay di face right now si convict bi ak tamit dunda bi naka la mel ak lopitaan bi ak tamit police yi naka la ñoo traité nit yi guddi gi bu waxtu yu jotee so suma broda uh, tur bi waaw gannaaw biñ sante yàlla ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ñu ngi si dëgg bi muy Baro waa mag nyom nyep ñëpp ñu ngi leen di nuyu wax dëgg yéen a ngi liggéey liggéey bu rafet yéen a ngi def lépp loo xamante ni lu rafet la wax dëgg fa yàlla dañoo kontaan si yéen si yéen bu baax a baax a baax a baax ndax tamit wax dëgg fa yàlla suñ waxee rek ñi ngi naan fi amut fi waaye gannaaw yalla kenn xamul rek waaye liñ mëna gëm rek moy na leen protéger suñ bop waaw na leen protéger suñ bop di sol maxi di raxasu suñ loxo di li ndax tamit ñun fi lañ dëkk waaw wax dëgg fa yalla ñun fi lañ dëkk gannaaw yalla Gambia rek lañ am ñu ngi ñaan yàlla na fi feebar bi jóge ñu ngi ñaan wax dëgg fa yàlla ndax tamit lii dafa neexul métti métti bi bari na lépp bari wax dëgg fa yàlla de dafa bari. ndax yow yan métti métti nga nekk di jànkuwanteel si affaire yan métti métti nga si gis. waaw lool lool loolu soo gisee loolu ndax li li waral loolu ndax ñu ngi toog. tey ay góor yàlla yoo xamante lu raw ñu naan tëdd leen teg loolu dafa métti leneen lu mel ni loolu tey góor yàlla yëpp dañoo miin loo xamante ni ëpp na ñu naan ay tëdd leen ten ay nangam sangam yoo xamante ni loolu dafa métti waaye tamit soo gisee loolu yëpp ñun nangun leen ko wax dëgg fa yàlla ndax kenn xamut waaye ñu ngi ñaan yàlla li nga xamante ni tey moo waral tey ba nit ñi yëpp naan ñu tëddaleen ten yal na fi yàlla génne loolu ba nga xamante ni ku nekk tey ni nga doon doxee di ko mun a doxee waaw ñu ngi ñaan yàlla loolu bu baax a baax a baax wax dëgg. su léegi comme yow. nekk nga koo xam ne. lesi yuut maan nga si town bi. Mm-hmm. so naka nga gisee police yi ñoom tamit ak liggéey bi ten technologue bi naka lañ dee defar nit ñi naka nga ko jàngatee. waaw wax dëgg fa yàlla police yi tamit dañ leen di rafetlu seen liggéey ndax seen liggéey lañ nekk wax dëgg fa yàlla seen liggéey lañ nekk duñ leen aayee mukk seen liggéey si liggéey nekk waaye tamit dañ leen di ñaan tamit na gaay di understand booy yi wax dëgg fa yàlla nañuy understandante ndax lépp lu understand mun a nekk rek. si la lépp mu a rawe waaw wax dëgg fa yàlla nañuy understandante te xam ne tamit lii day weesu waaw lii day weesu ñaanu ñaanutoon yàlla police ay police di ñëw si dëkk bi naan leen ay time bi nii ak nii ak ay problème loolu yëpp ñu ngi ko doon aspect wuñ ko woon sax waaye tamit xam nga tamit loo gis rek am na lu ko waral waaye ñu ngi ñaan yàlla lépp mu mu raw fi loo xamante ni dafee da day loraange rek mu génn fi te xam ne tamit police wax dëgg fa yàlla tamit dañuy dañuy doxal xoolal seen yoon rek yoon rek la ñuy doxal du ay question xoolal ñoom seen ennemi lañ wala ay nii ak nële duñ ay ennemi ñun ñun xamuñ ennemi ñun eso sax every day daf di daf di waaye lu mu fi dee rombee lu mu dee wax mooy lan Wellesley Jëm Sénégal ñoom ñëpp dañoo dégg ndigal dañuy dégg ndigal ñii ñu respecté loi lañ te wax dëgg yàlla ñun dañuy respecté lu mel ni Wellesley fii amul dëgër boofa lu nekk ji nañu ko lu nekk ji nañu ko fii waaye ñun amut amut amut loo xam ne nii dañ koy ñàkk respect ñun ñëpp ñu ngi ko doxal ci yoon ñu ngi respecté yoon bi xam nañ ne daal fii dara nekkul fi lu dul Gambia lu dul yoon te respecté nañ yoon bi ñu ngi ñaan yàlla nag yal nañu yàlla génne si feebar bi ba ñëpp képp ku waay nekkoon si loo nekkoon rek nga continuer ko si jaam ak salaam waaw wax dëgg fa yàlla ñun bëgguñ lii ay tëju ay ten ay tëju ay nangam yooyu yooyu yooyu ko wax dëgg ñu ngi ñaan yàlla nag yal na fi yàlla génne lii yëpp mu jeex tak yen ñëpp ngeen nekk si jàmm ñu nekk si jàmm yéen waa télé bi nag maa ngi leen nuyu bu baax maa ngi leen di gërëm bu baax ndax ki leen fi indi sama mag la sama lépp la waaw wax dëgg fa yàlla sama genn wàll la muy Cheikh Diaw kii amuñ fayam ndax lépp luñ gis mu ngi doxal koñ bi mu ngi doxal dëkk bi mu ngi doxal lépp lépp luy yoon rek mu ngi koy doxal kon ñu koy sant ñu ngi koy gërëm bu baax wax dëgg fa yàlla amuñ fayam waaw waaye wax dëgg fa yàlla Baay Faal yi sonn nañ ana occupation yàlla yàlla yi def nag lépp mu jeex waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf ayda ayda kaay koñ bi waaw yéen nii ngeen ko dee gisee gis ngeen fu mu nekk right now nit ñi fu mu nekk ñu ngi ñëw di jënd si bitik yi last minute ñi ñun waa Banjul li moom dañ ñun last minute fii mooy Wellesley Street yéen a ngi gis fii mooy Wellesley Street Banjul fu ñu jógee si Hood bi firehouse waaw so right now am na si xale yoo xam ñu right now bugawa, Muy wax Mana standa? No nga burus. bul rus deh, rus da ngaa taxaw rek eh, bul rus Salah ñaan naa la kañ nga bul rus ana sa max bi time bu des moo bariwut ayda waaw ñu fi am Wow, Fini nak mau mooy fu mu nekk nyep now ñëpp door nañ di dugga seen kër yi fu mu nekk time ba ngee jot si ñëpp a ngee daw ba pare xam nga vidéo bi moom media bi su beetee dëkkandoor yi rek ñoom dañ dee daw right now gisuloo maa ngi bugg a interview gaay pour ñu wax ñu luy seen problème ke, ñun loolu lañ fi nekkee ñun waa Sahel pour xam problème nit ñi pour dimbale nit ñi lan la gaay di ci convict bi nii so fu mu nekka nii ñu ngi demaat si xuut bi deelu waxa booy yi mooy loolu yeah hmm? ok ok ok ok waaye su ma ndu rek lii daf leen beeta waaye xam naa fu mu nekk lii su fi jógee ñoom seen boppa. film film the boys let them see themselves.